lii ñuy teg teguñu ko pour mu fay bu suba dañoo bëgg mu pérenne dans le temps moo di que tey nit dina ci nekk doomam nekk ci beneen doomam ku doomu kooku mu nekk ci bu fekkee nag dañuy joxe xaalis ci nit ñi duñ ko delloo day yàqu ca loolu la bañ ku nekk da nga ciy jàpp xam ni que dafa mel ni que yaay yóbbu ki nga xam ni moo topp sa gannaaw tox la ko parce que li ngay jox nga liggéey ci jàppale nañu la ba nga egsi fi nga yaakaaroon a egsi kon mayal chance keneen ñu jàppale ko pour mu egsi si fiñ ko war a egsi d'accord donc euh, Euh, li abel, la abal dañ koy rembourser ci ay échéances yo xamni ni dañ koy définir ci waxtan ba balang ñu ko jot dinañu la xamal lepp li nga xamni war ci abal bobu d'accord donc garantie bi ngay indi dañ koy expertiser en fonction ci montant bi ngay ab bi lay abal dala ci accompagner parce que ki nga xam dafa ab fukki junni mënul am même garantie bi que kam ki nga xam dañ ko abal deux millions du benn donc kuy ab un million mënoo indi garantie wu lam bi nga takk muy jar fukk ak juróom nga ni moom mooy garantie bi donc il faut que garantie soit en adéquation avec le montant bi nga la abal nit ñi procédure bi maintenant ni la léegi ku xam se que jënd nga sa carte de membre ba paré FKR abal ma ma liggéey nga jënd ko ki sa quinze francs ba paré léegi maintenant li ngay yaakaar mooy ñu abal la maintenant pour ñu abal la il faut indi un projet parce que doo ñëw rek salaamaaleykum jënd naa carte abal ma million merci beaucoup jërëjëf du non. million bi dafa am ci luñ ko sës sës bi mooy projet bi nga xam indi

ñaar faut que bi mu il faut nga dugal sa ñaar fukki junni ba leneen mën d'accord allô très bien donc projet bi nga xam évaluer dañuy projet bi projet effectivement projet bu mu nek a la wala du projet bu mënul nek. projet bo xamni ni so ci demee ba mu ci ca ba di nga ci gagner quelque chose parce que aussi kuy liggéey am ci dara motax ni di liggéey mais